asalaamaaleykum mbokk internet yi amati mbégte jàkkaarloog yéen ci seen émission jàngat jàngat nag dellu siwaat tey léegi dañ nag ay jàng ay jàmbat yu bari jóge ci yéen ni nañu indiwaat émission bi jàngat tey nag la koy suñu borom soog a ma am mbégte lool jàkkaarloowaat ak Ablaye Mbow mu jàngat li nga xam ni moo fi jot a xew ci fan yii ñu génn rawatina li nga xam ni mooy mbirum Ousmane Sonko nga xam ni am na xibaar bu bees bu ci tukki démb fële ci tribunal de Ziguinchor nga xam ni finalement juge bi ko doon àtte ginnaaw bi ko cour suprême àtte ba noppi jox na dëgg Ousmane Sonko ak i avocat am radiation bi nga xam ni moom lañ ko def ci liste électorale bi nañ ci dellu léegi beneen bi ci topp dañuy taxaw def jàngat ci processus électoral bi. xam ngeen ni bi ñu soppee gouvernement bi ñu bëri doon xaar coppite gu rëy ñëw ci ministère de l'intérieur bëgg toog jàmbat bi nga xam ni kujje yi ak observateurs yi yàgg nañ ko wax ni bu ñu sañoon ministère boobu koo xam ni yënguwul ci wàllu politique moo koy yore ndax mooy saytu mbirum élection yi ak di ko doxal ñaari poñ yooyu jàngat tey Ablaye Mbow ma bàyyi la nga nuyu suñu internautes yi avant ñuy tàmbali waxtaan waaw maa ngi lay nuyu euh, bu baax euh, Mor di nuyu bu baax euh, mboolem ñuy seetaan di ñaan yàlla defal ñu tawfeex ak tey si defal ko Sénégal gi yëpp di ñaanal bu baax itam suñu mbokku Palestine yàlla may leen jàmm si li nga xam ni mooy tuuxi duuna yi nga xam ne Israël ñu ngi koy def en tout impunité nag si wàllu communauté internationale bi loolu tamit ñu ngi leen si ñaanal bu baax di ñaan yàlla jàmm rek am seen biir jàmm law si àdduna bi yëpp. Ablaye comme ni ñu ko waxee suñu njëlbeenu bi ci indi waxtaan wi dañuy njëkkee mbirum Ousmane Sonko jëflanteem ak wàllu yoon ak li nga xam ni moo ci tukkee ci lu tegu ci kaw en tant que candidat pour jëm ci élection présidentielle euh, ñetti dossier boobu ba léegi lañu ngàll ci kaw bi ci njëkk mooy dossier mbirum Adji Sarr mooy mbirum viol boobu beneen bi ci topp mooy. dossier ak Mame Mbaye Niang mbirum diffamation beneen dossier bi nga xam ne nag ibbeeguñ ko sax ba di ci def instruction mooy dossier bi ñu ko mujj jàppee jaarale ko ci mbirum vol waaye jël ay tuuma yu bëri lang ko ci ndoddam ci xew-xew yi fi amoon mars deux mille vingt et un ba juin deux mille ñetti dossiers yooyu moo gàllu ci ndodd bi ci njëkk muy dossier mag Adji Sarr dañ ko àtte ci lu mu fekkewul daan ko ñaari at kaso ginnaaw bi juge bi dàqee mbirum viol ak mbirum menace de mort toppe ko corruption de la jeunesse dossier boobu moo waral coow li tukkee ci radiation am ci liste électorale ba ci xew démb beneen dossier bi mooy dossier ak Mame Mbaye Niang boobu dañ ko cee tëj juróom benn weeru kaso yu mu dul tëdd amaan ko ñaari téeméeri million waaye dossier boobu jeexagul ndax ay avocat am dañu def recours en cassation ci dossier boobu donc boobu taxul ñu wax dossier bi ñuy ibbi bu yàggul nag boobu commencé guñ sax enquête donc dañuy taxaw ci dossier bi ñu ko jugé en contumace nga xam ni foofu dafa am benn article bu nekk ci code de procédure pénale muy article trois cent sept bu ni nit bu fekkee jàpp nañ la juge la ci loo fekkewu ba bu ñu demee ba teg la loxo jugement boobu day dal di faate loolu mooy article trois cent sept ñu bëri jàppoon ni nag buñ ci sukkandikoo rek doxal yoon Ousmane Sonko amul dara lu ko war a dindi ci liste électorale waaye loolu bokkul woon ak gis-gis ak ki fi mujjoon a nekk ministre de la justice muy la Madior Fall ba loolu moo waraloon ñu passé ko ci liste électorale yi juge bi démb ni nañ ko ci delloo na jëli fiche la am bokk ci collecte de parrainage am parce que ba fi ñu jël daal tey jii amul dara lu ko empêché mu nekk candidat loolu mooy coow li Ablaye naka nga gisee li tukkee démb ci tribunal de Ziguinchor. xanaa xanaa tàmbali fàttali euh, effectivement comme ni nga ko waxee euh, professeur Ismaïla Madior Fall am na loo xam ne waxoon na ko jëm si non naan non naan anéantissement wu li nga xam moo di euh, verdict bi verdict bi jëm si mbiru Sweet Beauté bi wax ni effectivement loolu définitivement. waaye nag bu ñu fàttali itam kii di Abdou Karim Fofana euh, di ministre porte di du gouvernement moom itam dafa taxaw jàkkaarloog sénégal yi ne radiation boobu lu ko sooxee mooy daan gi ñu ko daan ci wàllu euh, dossier ak Mame Mbaye Niang gis nga kon boog ñaari wax yu safaanoo la te xam nga ko wax nga ko dossier boobee mi ngi dans le circuit de la Cour suprême te Cour suprême joxagul li nga xam ne moo di moo di décision finale waaye nag li ëpp solo moo di démb la xew Ziguinchor ko war a mën a jàngatee. moy li ñepp yag di wax ni bir justice batay amna juge yo xam batay euh, de nga maam ñi ngi ñi ngi li nga xam ne di seen walu indépendance parce que loi texte ñone le magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi pour man ak ñen ñi xeyna juge Bobé, en attendant moom il a lu le droit il a dit le droit il a rendu le droit si li mu

lu tax waa Pastef ak ñi farandoog Pastef ak ñi nekk si opposition bu leen neexoon jóg ne juge boobu affaire la bokk si su boobaa nag dañuy gàkkal li nga xam moo di deru justice donc de ce point de vue là ñu mën a jàpp te ñu ñëpp war see mën a ànd mooy juge bi jox na dëgg Ousmane Sonko xool na ni radiation bu jaarul si yoon te itam bu jaarul si yoon si li mu jàpp en attendant nag ñoom ñuy def li nga xam ne moo di pourvoi en cassation te gis naa sax yeneen juriste yu naan euh, li juge bi rendre.

bi ñu dëgmalee élection présidentielle gis nañ fi xew ñu mm-hmm. mbirum Karim Wade ak Khalifa Sall mm-hmm. nga xam ni ñoom yoon da daanoo mm-hmm. ba seen condamnation définitive kenn ñu tëj juróom benn ati ko keneen ki ñu tëj ko juróom benn ati sax passé lañ ñu tolloo leen jëli seen fiche de collecte de parrainage dem ñu parrainé leen ba ci ko ba you déposer un dossier Du conseil constitutionnel conseil constitutionnel tout un dossier la matal nañ parrainage matal nañ nangam ak nangam ak nangam pour nga président. Mhm. un cas surtout cas judiciaire dañ mhm. mhm. ñu ci fichier électoral donc mënuñoo nekk candidat ci élection présidentielle. Mhm. loolu moo xawoon en 2010. Mhm. ñëpp doon xaar nag lu ni mel ci biir mu Ousmane Sonko. Mhm. bàyyi conseil constitutionnel bi nga xam ni moo war a àtte ci kan moo war a doon candidat ak ko war a doon bu fa dossier Ousmane Sonko yeggee te am benn ci charte yi parce que juróom-ñeenti critère lañu ñu tëral bu ci amee benn bu ci matalul ñu soog ko niiral candidature loolu lañ doon xaar léegi nag li juge bi àtte démb bu fekkee c'est une condamnation définitive dafay delloowaat conseil constitutionnel cër bi nga xam ni moom la am maanaam moom ci mu jëntal ga moom kat mooy le sept sages ñoom ñoo war a wax kan mooy doon candidat ak ko dul doon sukkandiku ci dossier bi candidat bu nekk di indi nga xam ni dañuy xool juróom-ñeenti critères yooyu est-ce que matal ko mhm. wa ilaa bu fekkee jamono jooju matal ko nous xool ni que comme ni ko defee woon Karim Wade ak ni ko candidat mhm. donc cër boobu la juge bi ci décision jël conseil constitutionnel mhm. mu avons comme ni ko droit ñoom nguur gi ak avocat dem en cassation devant la cour suprême pour nier ko loolu day indi beneen procédure mhm. waaye li ci rek juge bi décision bi mu def démb ni

Dossier, c'est mm-hmm. loolu mën nañ jàpp ni peut-être ci la mm-hmm. li nga aussi am nañ jàpp ni peut-être article quarante du code électoral mm-hmm. article 41 lan la article 41 la radiation d'office intentée contre un électeur pour autre cause que le décès ne peut prendre effet si celui-ci n'en reçoit pas la notification mm-hmm. l'article L 41 mm-hmm. du mm-hmm. code électoral notification am kenn mënu ko ko signifier radiation bu ñu tant que électeur ko def notifier ko ko ba mu jot ci ni électorale donc vous am effet te dafa mel ni nag mbirum Ousmane Sonko looloo ci am. Mhm. parce que gis nañ coow fi am yëpp ci est jot na radiation wam notification ba mu dee parce que radiation bi nee nañ le 2 ba la ñu génn lañu ko dogaloon waaye le 20 septembre ca lay huissier bi di soog a jël boobu notification de radiation ñàkk a jote ci Ousmane Sonko ci këram ñàkk a jote ci Ousmane Sonko ci hôpital principal bi mu tëdd. tax mu yóbbu ko sous préfecture de Dakar Plateau est-ce que loolu day wane ni Ousmane Sonko jot na ci xel yi booy xalaat da naan xëy na jotu xëy na bi itam ci article L quarante boobu la sukkandiku décision bi mu jël tey lu jëmante am daal moom jàpp na ci àqulaay taalaam que Ousmane Sonko dañ ko dindi ci liste électorale yi ci lu dul yoon mu delloo ko cër boobu mu def nag ñu xool fan la wànneeku bu mujjee bëtam est-ce que day am pourvoi à cassation devant la cour suprême est-ce que mbir mi day mujj définitif bu ko defee Ousmane Sonko ak ñooñam mën na jëli seen liste de parrainage collecté ba ci cappaandaw ga bu déposé dossier am devant le conseil constitutionnel ñu xool moom lan la jaar. effectivement euh, te defe naa ni euh, le seul gendarme de l'éligibilité euh, fii si réew mi dañ ko war a jox cëram mu di conseil constitutionnel jàpp nak administration warta mënta substitué wu à la justice te gis nañu ni euh, depuis un certain moment administration bi liñ koy liggéeyloo si beddi li nga xam ne moo di ay opposants dafa bari boo fàttalikoo Karim Wade ba mu inscrire direction générale des élections moo génn à travers euh, ki nga xam ne mooy le directeur de la communication di Casimir doon expliquer lan moo tax ñu bañal li nga xam ne moo di inscription boobu Karim Wade l'un dans l'autre même bu fekkee ni am na loo xam ne cër la ci moom c'est war ko mën di doxale da ngay gis ni tey jii administration bi dañ ko instrumentaliser trop politiquement ba si élection yi mujj gis nga ay liste waxoon nañu administration territoriale bi nañu dem attaquer li nga xam ne moom cour d'appel yi génne comme décision pour rétablir dans le droit ay liste opposition donc euh, bu ñu demee noonu nag de cette politisation qui euh, en fait impression bu ñuy am ci politisation à outrance de l'administration c'est defe naa ni dafay andi ay mm-hmm. mais l'un dans l'autre lépp solo modi euh ñi nek candidat nañ leen bay ñu dem ci sen parrainage que am parrainage dem conseil constitutionnel déposé ko conseil constitutionnel nak moy xol mbir mi ndax jaar na pour valider cette ce ce candidature mm-hmm. Khalifa Sall ak Karim Wade validé wuñu won sen candidature waye buñu faté ni condamnation c'était définitive donc moom ñu leen rattrapé code électoral bi ancien code bi ci L30 bi nous ni pour nga un candidat nga électeur ndaxam voilà ndam ndaxam ñom dañ définitivement kon bok dañ leen di retirer ci li nga ne nous statut hmm. euh, électeur ki nga xam Ousmane tous ces dossiers sont pendants manam dossier am nous ñu ngi ci kanam yoon hmm. kon boog ndaxam dossier yëpp ñu ngi si kanam yoon dañoo war a bàyyi yoon nag def liggéeyam mu def liggéeyam si tey ji bakken ci dal xel parce que itam l'affaire euh, Sweet yi ba tey double interprétation moo am wax nañu condamnation définitive ñeneen ne condamnation mënte définitive dès ko que contumace bi teg nañ ko loxo quel que puisse et quel que soit le motif alors que Ismaïla nee na lañ ko jàppee ak la taxoon ñu daan ko fale bokkut gis nga ñaari mbir yooyu kon boo kan moo ko mën a àtte ku dul lii nga xam moo di wàllu yoon defe naa nag du kii taxawee ne kay taxawee ne kon boog nañu delloo yoon cërëm yoon boogee nag na ñuy fàttaliku ñoom texte yi moo leen ne la magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi maanaam loi kese moo tënk magistrat bi amul keneen amul leneen kon boog exécutif bi na taxawee ne kujje gi na taxawee ne administration bi nga xam ne exécutif moo ko coiffé sax na tëddee njaaxaanaay bàyyi lii nga xam moo di yoon parce que tamit la justice c'est le dernier rempart bu nërmeeloo démocratie bi nërmeelu te itam nañu bàyyi saay bu juge taxawee ñu naan ko bàjjanam ak nijaayam ak ak jarbaatam parce que itamit euh, bu fekkee noonu la saay bu kenn joxee décision ñaf àndul ak décision bi war nañ ko mën a jiiñ tey defe naa nag bu ñu wéy di jiiñ juge yi Sénégal nag bu yàggee <laughs> leneen lay jur donc il faudra quand même que ñu xamee ko noonu et puis mbir bi daal ñu bàyyi ko ci bi circuit bi mooy le seul peuple souverain tegal say ndax sa rëq say piège foog ni yow lépp mat na yàlla ñëw ne la hé man maay décider hmm. seul le peuple est souverain ñoom ñooy xëy au matin d'une élection Momar Diong Sidiya Ndiaye Fatou Diop ñooy xëy dugg ci bureau de vote ya ak seen carte d'identité ak seen carte électeur su booba nag yàlla mooy mooy saxal cofeel ci ñoom ni kii ngeen di voter te ñoom sax duñ ko tey kon boog masse boobu noonu di voter kon boog ñoom ñoo am souveraineté kon boog ñi am souveraineté a waxtaan ak ñoom da nga leen war a convaincre par les arguments da nga leen war tegal ay offre waaye du andi ay piège du andi ay beddi du andi leneen defe naa nag il faut quand même que l'on puisse retourner à une forme d'orthodoxie si li nga xam ne moy gu yemb depuis un certain moment on a l'impression que on écarte volontairement qui neexuma ki am doole su dama koy écarter nan comme on l'a en 2019 avec cinq candidats mais c'est une première moment 88, fichier bi eh, candidat 93, candidat 2000 mo ëppoon candidat 2019 2000 euh, euh, ñu koy waxatee waaw 2012 mo ëppoon candidat 2019 donc buñ démé bay tollu ci fichier wu 7 millions 400 000, mais amna ben minimum considérable acceptable ci walu limu candidat pour xamné effectivement buñ démé démé ci jongonté effectivement dañu né jaar na yoon candidat yi néewuñu barewuñu kon bok sénégalais yi amoon nañu temps déglu ñëpp. parce que tamit bu ñu nee deux cent xaw ma candidat moom loolu anarchie la. Mhm. parce que du vitalité démocratique ci parce que bu fekkoon ni ñoom ñëpp ñu validé Momar maa ngi yow bu ñu waree seetaan journal de la <laughs> bu commencé vingt heures xanaa quatre heures du matin lay jeex. dina doy waar. <laughs> en ci loolu am na ñuy méngale sax li xew Sénégal li mu candidat bi néew bi amoon deux mille ak li xew Gabon. Mhm. Gabon nga xam ne matuñu sax daanaka ñaari millions. Mhm. te

amone 119 candidats à la candidature. Mhm. C'est-à-dire limbi wessu won na 119 mhm. mhm. candidats à la candidature. nous, ñep comme niko 200 yi défé dañu démone laccé ji sen fiche de collecte de parrainage. Waye ci mu jëntel mais 27 rek ñoo ci déposer c'est du parrainage devant le conseil constitutionnel déposer cette candidature 27 ci mujj gi lañ ci téyé juroom ñi ñoo matal charte yi ñu laaj mhm. pour ñu doon candidat mhm. donc lu fi gule mhm. léegi nag li am ba am mooy bu ñu delluwaatee ci mbirum Ousmane Sonko ak mag président Macky Sall ci nguuram dafa mel ni xeex bu dul jeex te bu mu tàmbalee deux mille vingt et ba léegi ñu jëmlante ci wàllu yoon mbir mi dafa mel ni ñu jeexagul ba li ci xew dem waaye man li ma gëm mooy lu ci mënti am ak fu mbir mi di mujjee mooy Ousmane Sonko ak président Macky Sall dina am prolongation ci seen jaamarloo ci élection présidentielle bi lañu def ba mhm. président Macky Sall comme ni ko constitution bi laaj def na ñaari mandat day jeexal dafay dem waaye tànn na le 9 septembre ba la ñu weesu candidat officiel Benno Bokk Yaakaar muy Amadou Ba mhm. gis nañu itam keroog bi ñu ibbee buntu DG pour ñu bëgg nekk candidat dem gis nañ ni que lu weesu Ayib Daffé bi nga xam ne moo doon mandataire Ousmane Sonko laajal ko fiche de parrainage ñu gàntal ko ko am na ñeneen ñu bokk ci Pastef ñaar dee nañ ci defe naa lim bi sax mat na juróom. Mhm. yoo xam ne laaj nañ fiche de parrainage loolu nag li muy wund mooy même bu fekkee ni waa Pastef ñi ngi moy ci li Ousmane Sonko mooy seen plan A mooy seen plan Z mooy seen plan yëpp amuñu beneen candidat bu dul moom bàyyi nañ xel ni ci wàllu yoon. xëy na am na fu ñu ko mën a galgale ba du ko nàkk mhm. ba nga xam ni bàyyi nañ xel ni xëy na candidat de compétition mën naa bañ a ñàkk te loolu bu demee ba am voilà bu de ba nga xam ni bu Ousmane Sonko nekkul kandidaa moom lay joxeñ kooku mooy jàmmarloo ak candidat mhm. maanaam mën nañ ni bu fekkee ci mujjantel Macky Sall dafa témboo ak Ousmane Sonko maanaam ku nekk neenal candidature moromam parce que nag bu joxante yàlla dëgg xam ni Ousmane Sonko ak mobilisation bi mu defoon ci jeunesse bi tax na Macky Sall xaw a deltu ginnaaw ci mbirum troisième mandat loolu moom il faut que ñu nangul ko pression boobu nga xam ni moom ak i ñoñom ak mbedd mi def nañ ko ci président Macky Sall tax na mu deltu ginnaaw léegi nag bu demee ci élection présidentielle te Sonko nekkul candidat foog mu am prolongation par candidat interposé mm-hmm. voilà Macky Sall ak Ousmane Sonko bu fekkee ci mujjantal gi Ousmane Sonko nekkul candidat parce que bu Macky leer na bu Ousmane ñu prolongation sénégalais effectivement. Eh, pourvu que kasse gagné rek euh, té ëpp doolé euh, mu mu bañu nek lu ñuy wax victoire à la touriste manam nga gagné té du dégg barawo maintenant li ci am solo modi xam nañu ñaar ñooñu seen seen seen jakarlo def na ni fu mu toll ni ñak mayanté mo mo ci mo ci gëna fess té ñak mayanté gogu gis nañ ko ci li nga xamné moy xew dem ci euh, déjà décret présidentiel bi tax ñu né tass nañu parti Pastef en attendant ñuy xol itam recours bi ñom ñu duggal ci chambre administrative bi nga nga xam di wàllu cour suprême lan la cay wax ndax da leen di delloo seen ak ak yeleet jëm si ni parti Pastef dafay wéy di dund loolu cour suprême defe naa di war na see mën a war na see addu itamit mm. maintenant bu ñu jëmee si lii defe naa ni wax ji mi ngi jógee si jàllu euh, jox plan B daanaka bu mu ko dundee ba tey wax ko euh, ba tey def naa cooli mi ngi si mais nag ku xam Diallo Diop xam expérience am xaar jaar-jaaram xam ne c'est un homme de la gauche dañ lay wax ni dans la gauche on ne met pas en avant la personne du ñu jiital nit projet la ñuy jiital mm-hmm. kon boog moom xalaat na ni ak jafe-jafe yu Ousmane Sonko am xëy na il faut impérativement ñu jiital li nga xam moo di alternative alternative mooy plan B boobu ñu wax juróom yooyu nag damay jàpp ni ah si wàllu Pastef ñoom loolu sax waruñu ko def débat boo xam ne day nekk débat public débat maanaam bu fës si si mbedd bi ñoom à l'interne ñoom ñoo ko war a togg ba nga xam ne dañuy xëy rek ne mi ngi nii su boobaa nag euh, missile sol-sol euh, yi ak char de combat politique yi def naa ni da leen di bett ba duñu mën a tiire. <laughs> defe naa <laughs> voilà léegi bu nekk nag Sonko moom bokk na ñu ne ok bokk na mais bu dee bokkut ñoom tëral ko si yoon te conseil mooy wóy bëtu ko ne bokkut su boobaa nag dañ see war a tënku ànd si ñoom ba pare seet la ñuy andi mais l'un dans l'autre euh, élection yi ñuy jëm ay élection yoo xam ne gëm naa ni dafa war a marqué dina marqué l'histoire politique et électorale du Sénégal. Mmh. parce que les faits sont inédits li au Sénégal depuis mars 2021, mille vingt ba fu jëm si atum deux mille vingt trois inédit te booy xool itam parti socialiste nous mu dund dund jafe-jafe si départu Moustapha Niass ak départu Djibo Leyti Ka li dal APR dalu ko xool ko bu baax si lim yu beddeeku daanaka taxaw ne dañuy samp seen parce que tamit en dehors du candidat choisi bi nga xam ne euh, Amadou Ba da ngay xaawlu ni daanaka ñett ba ñeent beddeekuñ nañu si raw APR ak Benno ni dañuy doon candidat donte le différence bi moy président bi pour la première fois fay ñak bokk ci élection présidentielle. Oh, maintenant li am solo modi nañu bàyyi xel Sénégalais nañu bàyyi xel askan wi. di fàttaliku ni ñoom dañoo war dem convaincre que diverses ci li nga xamné moy les calculs politiciens mooy li nga xam ne mooy les compromissions politiciennes ak yoo demee noonu ba nga xam ne effectivement nañu war a xoolee ñun suñu wàllu démocratie suñu wàllu état de droit ñu ko gën a mën a tabaxee ak la série d' arrestation qui ne s'arrête pas il faut le dire parce que ba tey am na ñoo xam ne ñu leen di teg loxo loolu yëpp naka lañ siy génnee génn googu nak defe naa ni il faut ñuy fàttali ni que li tubaab di naan la braise couvre sous la cendre maanaam xal bi doom doomu taal ko euh, euh, ëmb mën nga ca biir ba tey mi ngi Sénégal mm. donc ñun nañu fexe ba xal googee waxuñu la euh, dóom bi rek dañ koy fekk fa mu nekk fay ko ba mu fay fépp euh, defe naa nag loolu mi ngi jëm si ñu nangul nit ki nga xam ne remplir na les conditions pour mën a doon candidat war a dem doon candidat mm-hmm. ba nga xam ne effectivement ay la yëwan daañu mën a moytul yeneen yi te itam bu ñu fàtte ni élection yi daanaka presque cinquante quatre pour cent de taux d' abstention la moo taxoon mu amoon un niveau élevé d' abstention Eske yi tam, 2024 bi, si lò lè yi tabi, wè yi la nyonyo dè yi furekou pou dèm vote di, def nan lò lè tam, lè yi dependre si sutiachon bè nga kamezouni, douke si lè nga kamezouni pastev, ak douke si lè nga kamezouni sutiachon osman son kon. Lò ti mante Amdal, nye gijam ti eleksyon yi beko, eleksyon ouverte. Giri nyanji, wangokotank, goulèt, nye dèm eleksyon prezidansyen bò kamezouni, ki nye kamezouni mò wè prezidansyen bò k ñu njort ni xëy na ñu dem ci élection présidentielle boo xam ne ci gën a fës ci ku jég mën na cee bañ a bokk bu ko defee mbir mi day dal di ko jël rax ci dolli li nga xam ne moo tukkee ci élection législative yi ñu génn mooy boo jëlee téeméeri xob yu ne majorité bi mi ngi am ñeent fukki yeeg juróom-benn maanaam mataluñu juróom mm-hmm. te boobu mooy bi fi président Macky Sall nekkee mm-hmm. jiite troupe affaire mhm. ak Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñu dem ci ay élections législatives. Mhm. donc loolu li muy wane mooy élections yi moom ibbeeku na waaye ku ne élection Ablaye Mbow ni processus électoral. ak organisation élection li ñu nemmeeku ginnaaw bi coppite ñëwee ci gouvernement bi remaniement mooy bi ñu dindee Antoine Diome nga xam ne ñu bari ñu ko doon dingat ci yore nu mu ministère de l' intérieur. ka ñu indi mu wóotu ko fa mooy Sidiki Kaba. Sidiki Kaba nag nekk responsable bu ñu ràññee ci biir affaire mhm. maanaam nekk un homme. Mhm. c'est-à-dire li nga xam ni ñu bëri dañ nañ ko tàkku ci société civile ak ci kujje gi pour ñu tabb ci ministère de l'intérieur koo xam ni laalewul ak mbiru politique pour mu mën a organiser élection yi ci lu mucc ay ak loo xam ne dina dalal xelu acteurs yépp mhm. mucc ta am na sax ñu commencé ŋàññ tànneef ñu tànn Sidiki Kaba. Mhm. ni Tanef la boo xam ni pas un bon signal. Mhm. ku ci mel ni soxna Mimi Touré loolu la wax. nee mhm. na tànn bi Sidiki Kaba dénk ko mbirum élection ëlëm na ko. ku ci mel ni waa taxawu Dakar. moom it dafa am fu ñu jaar Sidiki Kaba. parce que Sidiki Kaba ba ñuy àttee mbirum Khalifa Sall moom moo nekkoon ministre de la justice. ba ñu àttee mbirum Karim mbirum Khalifa Sall. gis nañ wax ji joxoon ak taxaway bi ci am ba nga xamni lolu itam dalul xelu wa taxaw Dakar waye processus électoral bi est-ce que c'est pas une bataille déjà perdue par l'opposition parce que dafa melni Macky Sall ak nguuram xërtal gi ñu xërtoon Ousmane Sonko nga xamni mo moom na ko ku jégi tax na ba ku jégi seen xel demul woon ci taxaw nag fikku mu processus électoral bi pour mu jàpp ci yoon Euh, boo ko méngaleeg Abdoulaye Wade bi nga xam ne def na vingt six ans d'opposition Abdoulaye Wade booy xool li mu gënoon fësal si xeexam euh, tàmbali ko si élection générale quatre ba si quatre vingt huit ba si élection li mu mës xeex mooy transparence si processus électoral bi Abdoulaye Wade doo ko dégg sax mu naan la ay diplomatie beeg ay juge beeg ak yooyu lu bari si li nga xam ne daal fësaloon na ko mooy naka la ñuy fexe ba am élection yu ñoŋ parce que am na élection yu ñong moom xamoon ne loolu moo koy permettre bu ñu yeggee si cappaandaw ba bu dee gagné na au moins résultat li génn si urne yi ñu war ko mën a dëggal mu fës waaye booy xool ku jégi jamono ji la ñu topp effectivement euh, si wàllu xeex euh, boolewuñu si trop trop trop li nga xam ne mooy dëgg-dëgg nañuy taxawee pour am li nga xam moo di processus la bu ñoŋ bu ñu fàtte ni amoon na fi

andouñu ci ak société civile pour véritablement mener le combat par rapport ak li nga xam ne waxuñu ni dafa am ay lënt-lënt waaye mu une transparence boo xam visibilité bañ a am mm-hmm. mais c'est loin d'être le cas je rappelle que l'élection bi c'est une élection à trois tours L'élection bi c'est une élection à trois tours premier tour bi le processus bi jëm si parrainage bi ak admissibilité bi kan moo admis examen parrainage bi mm-hmm. processus boobu dafa am fu mu laata nag ñuy tabbi ci officialisation des candidatures jëm l'élection élection bi premier tour ak bu dee kenn gañewul ñaar ñoo génn pour ñu dem deuxième tour moo may wax processus bi élection bi à trois tours mais président Macky Sall ñaan nañ ko wax nañ ko opposition ak def man général ministre de l'intérieur bu ko fàtte sec ko fi mais ku dem ba ab ab général ministre de l'intérieur, intérieur koo xam mais war nga pour ne pas faire moins que ton prédécesseur nga imiter sa prédécesseur partisan def ko ministre de l'intérieur, intérieur au ministre chargé des élections comme Abdoulaye ni ko a dalal xel ba nga xam xel gu niveau par rapport à l'organisation, boo xam ne njortu nañu fraude pour nga def ko fi problème na mais tamit la nga xam ne dégg naa ko ay acteurs politiques di ko wax ñoom nee nañu c'est en amont lañ koy organiser. Mm-hmm. en amont boobu nag lan moo leen koy may ñoom tamit dañoo waroon jël mbir mi def ko cheval de bataille ñoom au lieu de se fédérer au de ñu groupe def groupement coalition de candidats déclarés sax de l'opposition bu leen neexee mu ñu liggéey. si li nga xam moo di transparence jëm si. am na xeex yoo xam ni surtout lu jëm ci transparence des élections ku jëgi ak lu ku nekk jiital jëmm boppam. Mhm. war nañ cee ànd. Mhm. xëy na nag loolu la F24 bëgg dab daabal parce que nee nañu dinañ ibbi ay concertation jëmale ko ci processus électoral ñoom waa F24. Mhm. muy loo xam ni pour ñoom dañ jàpp ne day continuité la. ci loolu ñu tudde woon dialogue avec le peuple. Mhm. ñuy xaar kon la wàllante dugg ba dem ci wàllu woowu. Mhm. waaye li ci mënti am mooy li gën a firndeel ni ku jegi xaw na nagat ci mbirum processus électoral mooy mbirum parrainage. Mhm. xam nga mbirum parrainage bi nga xam ni dañu dëgmal élection 2019 ñuy def les travaux sur la revue du code électoral. en deux dafa am ñaari idée majeure yoo xam ni moom la ñu beddi woon ci table bi. benn bi jëm ci mbirum bulletin unique mhm. nga xam ne kujje gi moo ko doon sàkku mhm. benn bi jëm ci mbirum parrainage nga xam ni nguur gi ñoo ko indi ñoom teg ko ci taabal mhm. waaye la ci bënti am mooy finalement mbirum bulletin unique nguur gi ak ñi mu àndal mooy ay alliés am fexe nañ ba ni mbir moomu moom nañ ko jox benn commission technique ba jëmmi jamono ñu xoolaat waaye nañ jàllale mbirum parrainage ba mbirum parrainage mu jàll mais gis nañ li ci tukkee nga yi finalement même bu fekkee comme ni ma ko waxee sànq cent candidats à la candidature lañ amoon en 2019 27 déposé déposés yi ñu mujj ci te juróom rek ñu bokk ci candidature yi mais xeexu contre le parrainage dañ ko bàyyeel daanaka ku mel ni maître Abdoulaye Tine mm-hmm. nga xam en décembre 2018 mon dix moom cour de justice de la CEDEAO cour de justice de la CEDEAO joxe ndogal en avril deux mille vingt et jox juróom benn weer nguuru Sénégal pour ñu dindi mbiru parrainage ndax ñaar la sukkandiku woon dogal boobu mu defoon benn bi dafa xool limu mu parti politique yi am Sénégal ñu toll ci ñetti téeméer ak lu teg mu xool conditions yi ñuy tëral pour parrainer comme dañ kenn ku nekk kenn rek nga war a parrainer mu xool ni bu fekkee li fi nekk ci lim ci parti politique Sénégal bu fekkee ni ñoom ku ci nekk da nga samp sa ñuy uti parrainage te ku nekk benn candidat nga war a parrainer kon lim bi du mat te bu boobaa dina am ñu ñu gàkkal wala ñu ñu xañ seen wàll ci bopp élection loolu mooy argument premier bi nga xam ni moom la cour de justice de la CEDEAO avancé woon deuxième argument bi mais dañ ñu woon ay la yëwén parrainage dafay violer le secret du vote parce que bu fekkee da nga ni électeur bi kenn rek la war a parrainer mais xel day jàpp ni moom kamoon jàpp ni moom la war a boteel te moom la taamu moom lay parrainer bu ko defee ça viole le secret d'école mais lan lañ seetlu bi nga xamee ni dogal boobu cour de justice de la CEDEAO génne na ko ne état du Sénégal ci juróom benn weer nañu fexe ni mu paasee euh, mbirum parrainage mais opposition bi n'a pas saisi la balle au bon gisuñu opposition bi def ko xeex. Mhm. sukkandiku ci kaw décision de justice CEDEAO boobu pour wañ loxo. Mhm. nguuru Macky pour ñu dindi parrainage. Mhm. ba tey suñ jëm yàlla yi problème yi nga xam ni. gis nañ ko ci parrainage bu muy saafara bu mu ci jur jàngoro. loolu nag dafay wone tout simplement. nagas bi nga xam ni moom la ko jege nagas ci mbirum processus électoral ba nga xamee ne lu bari mën na leen indil betteel ci élection yi ñu ñu mhm. daaneel foofu xëy na lay Mbow tëje ko. waaw defe naa ni um, lépp solo mooy ñoom nañu wéyal li ñu war a wéyal si wàllu xeet euh, sur le plan démocratique waaye nag bu ñu fàtte yi tamit euh, soxla nañu bu baax l'apport de la société civile. société civile bi dafa am rôle bu essentiel bu mu war a mën a jouer mm-hmm. mi ngi koy jouer si lu bari waaye da ko war a gën a mën a fësal euh, monsieur mel ni ñoom professeur Babacar Gaye et consort waaye tam l'autre part de la société civile l'autre part de la société civile jëm si li nga xam mooy respect des droits de l'homme des droits humains euh, maanaam ak ak yeneen doomu aadama bi donc ñaari part société civile ñii liggéey ci processus électoral ñii liggéey si ak ak yeneen doomu aadama bi defe naa ni war nañu sax lëkkaloo ànd ak ñi nga xam ne ñoo di acteur yi pour xool itam loolu yëpp nañ koy jooyantee waaye tamit nañu fexe ba nga xam ni processus bi daal dina gën a ñoŋ dina gën a leer ñu mën a tàbbi ci élection yoo xam ne jàmm kese moo ci am. Mm-hmm. et que sénégalais yi ku ñu tànn ñoo xam ne kooku la euh, ba nga xam ne effectivement ñu mën a génn ci leneen euh, yàlla musal ñu nag ci ay parce que tamit li rot ci bakkan euh, fii ci réew mi bari na te gis nga ni boobu ba léegi amul kenn koo xam ne teg nañ ko loxo daanaka suite à des enquêtes. yoo xam ne dañ nañ situé nañu responsabilité yi donc daal nañu taxawaat jàngataat ba xam ni eh, effectivement acteurs yi di fàttali ni Sénégal euh, lañ dëkk waaye sénégalais ñooy tànn. Euh, yàlla mën na ci def sutura parce que nag dafa am lu ñu yàlla bàgg bàkke Sénégal ni réew la boo xam ne quand même ñor nañ ci mbirum démocratie ba nga xam ne am na ñaari alternance yu fi am démocratie bal tàkkul géej gi débordewul am changement de réew en 2000 avec Ablaye Wade en 2012 avec le président Macky Sall gis nañ ni que ak bii ñu organiser une élection janvier 2022 organiser nañu des élections locales yu mucc ay coow lu bëri amu ci ba résultat bi ñëpp nangu gis ni que itam mois de juillet maanaam juróom-benn ñaari une weer après def nañu ay élection législative. gis nañ lu ci tukkee nga xam ni daanaka kujje gi ak majorité bi ñoo téngoo ci li mu député yi ñu am au niveau de l'Assemblée loolu nag la ñu yàgg a kañe ñuy ñaan yàlla rek acteurs yëpp concentré wu ci processus électoral bi ki ñu tabb ministre de l'intérieur te nit ñi commencé ko ŋàññ mu fexee ba la nga xam ne moom la nit ñi gis moom ba di ko ŋàññ ñu bañ ko cee fekk ñu def ay élections comme niñ ko daan defee le vingt cinq février deux mille vingt quatre buñ ko defee ñu proclamer ay résultats ci ëllëg Sénégal yi xëy liggéey. xam ni loolu mooy ndamu Sénégal. Mm-hmm. ci mbirum élection yàlla nañ ci suñu borom yóbbu ko jàmm. Mm-hmm. mbokk yi lii lañ leen indiloon tey euh, ci seen émission jàngat amoon mbégte lool fekkaat ko ak Abdoulaye Mbow euh, ñuy ñaan nag bi yoon mu bañ a dakk mm-hmm. euh, am na sax yeneen bonne surprise yu ñu leen dencal parce que am na benn plateau bu ñuy waaj boo xam ni man ak Ablaye Mbow ak professeur Sanoussi Ba ñoo koy fekk bu koy wax jotaay boo xam ni moom it nii lay mel rek mm. ab décryptage lay doon ñu waxtaanee ci li jëm ci réew mi Ablaye loolu la ñu ne loon tey suñu mbokku internet mm-hmm. di leen sant di leen gërëm di leen di ñaan ak di leen soññ ñu continuer di abonné wu chaîne chaîne YouTube le vrai journal TV di partager dem vidéo ba beneen yoon mbokk yi wasalaam